الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom di seede na moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu niñ koy jaamoo it ñi ngi ko war a roye ci kim doyloo woon yónni ko ci ñun muy suñu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk julit yi suñu borom de ba yonent bi nekkee ca Makka la woowoon julit ñi ne leen ay yéen julit ñi sax leen ci rukkoo ak sujud di jaamu seen borom te ngeen jihaad ci yàlla dëgg-dëgg jihaad yàlla moomu moo leen tànn diina ji defalu leen ci benn coono mooy yoon bi seen bàyyi Ibrahima jaaroon mbokk jihaad boobu yàlla wax foofu loolu day wane ni ca ponk yi gën a màgg ci bo ci mbiri diine ca la bokk moo tax suñu boroom bim waxee julli mu dugal ko ci biiram ba ay yee jeex mu indi wat julli na am bokk julit jihaad mi ngi noonu islaam wax ko ci aaya yu bari li nga xam ne mooy téerab yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte ne mbokk jihaad dafa am ñaari déggin su dee dangaa tëb rek nga ne jihaad boole ko ci baatil islam yi da ngay fekk ne jihaad boobu ma ngay féetewoo ña nga xam ni ñoom ñoo takku jàkkaarloog yéeféer yi ngir défendre diini yàlla ji waaye ngir tasaare diine yàlla ji loolu mooy jihaad bu ñu boyal bi gën a kawe waaye nag mbokk julit jihaad boobu su dee ne dañ koo xool lépp diine lislaam jihaad la julit bi dundam gi yépp jihaad la loolu moo tax ba ku nekk ci ñun war a pare bokk ci ñooñu di jihaad te yeneen ci bay sallallahu alayhi wa sallam ba ko ko yàlla sant fekk mi ngi ca Makka comme ni ma la ko waxe yàlla farata laa gul ñiy jihaad ak yéefér yi la suñu borom waxoon jurit ñi wa jahidu fi llahi xaq jihaad yi jihaad dem ci yàlla dëgg-dëgg jihaad kii di Omar ibn al As nee na man day toog naa ci détail yonent bi alayhi salaam benn waay jóge fee ñëw na ko ay yu mi yàlla yónni damaa ñëwoon day di jaayante ak yow ci jihaad fi sabilillah yonent bi alayhi salatu wasalaam na ko ah saa waay ndax yow bàyyi woo benn way jur sa gannaaw mu ne ko ah kay sama ñaari waajur yépp maa ngi leen bàyyi gannaaw yonent bi na ko xanaa du yool rek nga bëgg bu bawoo ci yàlla moo tax nga ne da ngay génn jihaad mu ne ko ah yow mi yàlla yónni loolu doom nga ma yëkkati mu ne ko kon demel jihaad ci say waajur loolu mbokk lu mu lay jàngal waajee gàddu jaasim wala gàddu char de combat dem di jihaad ci yoonu yàlla mi ngi ci mbir mu rëy waaye yow mi nga xam ne yaa nekk ak way jur yu mag taxawu leen di topp seen ndigal di leen jàppale loolee xam leen ne ci jihaad yi gën a mag la bokk loolu itamit la ñuy gisee ne suñu yaay Aïcha ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla day bakk na lool ñuy jihaad ci yoonu yàlla wax na seen fay ci àdduna seen fay ci àllaaxira ay yu mu yàlla yónni jox ñu ndigal ñun jigéen ñi ñu génn jihaad yi yonent bi alayhi salaam na ko yàlla jagleel na leen jihaad bi gën a màgg ci jihaad yi te mooy la nga xam ne mooy aj màkka kon bépp jigéen boo xam ne yaa ngi jóg di aji màkka xamal ne aj màkka googee jihaad la jihaad la ca góor ñu koy def waaye rawatina ci jihaad te jigéen ña nga xam ne ñoo koy def mbokk yu ñaari xadis yi dañ ciy déggee ne ndekete yoote jaamu yàlla yooyu nga xam ne yàlla da koy santaane te heure boo koy def mu ànd ak coono loolee benn wàll la ci wàllu jihaad da xam ngeen ni taxaw ay way jur rawatina buñ màggatee rawatina buñ tëli loolu lu jafe la waaye xam ngeen ni aj màkka nekk na loo xam ne nii lu jafe la loolu moo tax ba julit bi war a bàyyi xel suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana ñi nga xam ne ñooy jihaad ci ñun dañ leen tegtal suñuy yoon loolu muy wane ne ndekete kon yoonu jihaad yoonu yaatoo yaatu la ba nga xamee ne nii yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ko yaay Aïcha laajoon am na beneen jigéen bu ñëw laaj ko ay yu mu yàlla yónni am na day ay jigéen yu ma yónni ci yow ñu ne dañoo bëggal nga jox leen ndigal ñu dem jihaat yi yeneen bi alayhi salatu wasalaam ne leen képp koo xam ne sa borom kër day daa wuutu nga toog ca kër ga wattul ko njabootam wattul ko alalam yaa ngi am yoonu kuy jihad fi sabilillah te loolu bépp jigéen war koo xam toog da ngay toog sa kër borom kër waxtu njaboot ga ba lenn lu neexul yàlla doo leen seetaan ñu def ko lenn lu leen di lor ci àdduna doo seetaan mu am ci ñoom loolee da ngay gis ne ci wàllu jihad yi gën a màgg ci jihad yi loolu ci la bokk rawatina teete ga ngay teete njaboot gi di leen yar ci lislaam di leen nampatal ci ñu bëgg yàlla bëgg yonent yàlla ci jihaad yi gën a màgg yoo xam ne nii jigéen dina ko jihaad ci kaw suuf loolee ca la bokk mbokk dund àdduna jihaad la yu tasaaroo jihaad la ak suñu bakkan jihaad ak suñuy bànneex jihaad ak cheytaane suñu noon jihaad ak yéeféer yeeg naafiq yi loolu lépp nag dafa war ci julit bi mu waajal ko ca xam ni munta ñàkk amul koy dund ci kaw suuf jóge fe dem dee tabbi aljanna lu dul dafa jihaat ak ñii mën a limal sànq suñu borom yàlla mu ne maa bind dund ak dee ngir natt leen ana kan ci yéen mooy gën a rafet jëf addunaa ngi noonu mbokk nekk ab nattu ku jàpp ne sa dundug àdduna yépp bànneex ak noos dong la war a doon yow yaay ki xamul kan mooy sa borom yaa xamul lu tax ñuy ñële ci kaw suuf mbokk suñu borom subhanahu wa taala moo ne maa bind doomu aadama ci coono fokk nga def effort fokk nga jihaad ca loolu ndax am na foo ci regretté wala foo ci gagné déedéet day ànd ak yow ba baa ngay tëdd ci lalu dee suñu borom mu ne wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin saxal ci jaamu sa borom saxal ci def effort ba baa dee googu dina dikkal ca loolu mbokk la la koy jàppalal nga xam ne dundug àdduna gii ñu nekk day dund la goo xam ne ay bis yu néew la boo ci defoon téeméeri at bis boo dee da ngay jàpp ne benn bëccëg dong nga yendu ci àdduna bànneex bi fu mën a nekk day jeex bu jeexul it yow da ngay dem ba ko fi nga xam ne lan moo lay jëriñ fa nga jëm mooy effort ya nga defoon ba def la nga xam ne mooy ndigiri borom bi subhanahu wa taala loolu bokk buñ la doon tegtal la nga xam ne mooy buntu jihad mooy xamal ne buntu ba ca gën a màgg buntu ba gën a yey ci jihad mooy jéem a jóg jàngi xam-xam yonente bi alayhi salaam ne sakku xam-xam day farata la ci bépp góor ak bépp jigéen képp koo xam ne bëgg na nga dund diine te jëkkewul jaare la ci yow xam-xam kooku bëgg na laa fank wala mu bëgg laa jëriñoo waaye lislaam bi la ca suñu borom yàlla wax jaare la ko ci lan mu ñu yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ku yam yàlla namm ci yiw ëllëg yowm alqiyaama nar laa tabal ajjana dalay xamal la nga xam ne muy sa diine te diine joojee mënoo tëdd sa néeg yaay rek daal di koy xam fokk nga jëm koo jàng loolu moo tax ba ñu war a jóg góorgóorlu yow mi nga xam ne yaay jigéen place gënta màggu toog sa biir kër waaye xamal ne it génn mënta màgg gën a màgg génn jàngi sa diine borom wala génn jàngale ji sa diine borom loole ngeen bàyyi ci xel bu baax yonent bi alayhi salaam ne képp ku jóg jël yoon ngir jàngi diine boromam yàlla dana ko yombalal yoon ba nga xam ne nii moo koy tabbal aljanna ay yéen mbokk julit xam leen ne it loolu bokk na lu la ciy dimbali mooy nga xeex ak sa bànneexu bakkan suñu yeneen salallahu alayhi wa sallam nee na lii nga xam ne mooy ajjana day yàlla da koo wërale ay jafe-jafe ak i naqar ak i tiis lii nga xam ne mooy sawara yàlla wërale ko ak i bànneex bànneex yi neex lool yomb lool waaye la nga xam ne muy diine ji ay takk ak i jafe-jafe bari ci lool ca mooy fakk yooyu nga xam ne wax naa leen ko sànq su ko defee fokk nga xeex ak sa bakkan boobee muy jihaad bi gën a naqari ci jihaad yi ndax cheytaane ma nga seey yéefar yi ak naafiqi ña nga seey am naa bakkan moom mi ngi ànd ak yow yàlla cuubaale la ko bindaale la ko ba pare suñu borom yàlla ne lii di bakkan day day digle lu bon xanaa lu dul bakkan bu yàlla yërëm yal na yàlla boole ci suñuy bakkan mbokk suñu borom yàlla bakkan boobee la nga xamee ne nii moom la ñuy jëkk a xeex ak moom mooy ñu jéem a xam bokk waa ji xamul la muy yàq ëpp la muy defar na doon ci wàllu diine la na doon ci wàllu adduna la kon fokk ñu jàngi xam lan mooy li yàlla bëgg faratal ko ci ñun lan la yàlla xaraamal ñu war koo moytu léegi nag ñu daal di takku ba dëgër fas yéenee xeex ak suñu bakkan ngiree mu def loolu ko yàlla sant waaye bàyyi loolee nga xam ni yàlla dafa koo tere suñu borom yàlla subhanahu wa taala moom la wax ne qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha te xane ne ki xeex ak bakkanam ba noot bakkan boobee ba mu taxaw ca la yàlla bëgg waaye moytu la nga xam ne mooy la yàlla bañ ca mbokk xamal ne bépp ndigalu yàlla day commencement ba bakkan mën na koo bañ waaye boo ca xeexeeg moom day mujj wëlbat ku neex bakkan yow góor julli waxtu juróom ca jàkka ji day boo ko bëggee tàmbali ak ay jafe ci yow bàyyi say neloo fajar bàyyi sa liggéey bàyyi sa programme fexe ba julli du la raw ci jàkka ji ak ay jafe waaye boo ci xeexeeg sa bakkan dix jours quinze jours day mujj julli jàkka ja moog añ ak réer ak ndékki lu normal lay doon ci yow misaal bii bu mu mën a doon yow mi yàlla nattoo woon lekk lu xaraam njaalo carte ak lu mu mën a doon heure boo dogee na da nga koy bàyyi commencement day dana metti lool waaye bu yàggee da nga koy mujj bañ suñu borom yàlla bañ loolu ko loolee mbokk di mbir moo xam ne fokk doomu aadama yi taxaw ci xeex ak seen banneex suñu borom mu ne képp koo xam ne daa bew daa di gënale dundug àdduna kooku day sawara muy wàcc waayam waaye wa amma man xaafa maqaama rabbi wa naha nafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almawa koo xam ne ragal na bis biñ koy taxawal ci kanamu boromam mu fexe ba xeex ak bakkanam dox digganteem ak la ko yàlla araamal ku mel noonu day àjjana mooy nar a nekk la nga xam ne mooy wàccuwaayam su ko defee mbokk bakkan boobee bokk na lu ñu war a def mooy di ko fuglu di ko bàyyi xel fu ñu mën a toll di fexe ba nga xamee ne la taxoon yàlla bind ko muy jaamu yàlla loolu normal ci moom soo góorgóorloo rek mu daal di lay topp ci loolu waaye bokk na ci it di ko régler foo mën a toll muy li ñuy tudde muhaasaba suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne ey yéen gëm julit ñi gëm ragal leen yàlla ca ku nekk ne bàyyi xel la muy yóbbu ci boroomam ëllëgi ki si biir ngay xool say manki manki man fan laa tolloon daaw ci jaamu yàlla fan laa toll ren naka laa meroon ci jàngum alquran naka laa ci mel ren ma ndax bàkkaar yii naka laa ci mel ma man sama dëkkandoo sangam nim mel ci jaamu yàlla naka laay def ba dab ko yooyee nga xam ne ni mooy contrôle sa bakkan di ko bàyyi xel ca la gën a màgg ci jihaad boobee xam leen ne mbokk ci la bokk waaye bokk na ci itamit mbokk julit mooy bari lool looy tuub di dem ci sa borom xam leen ne bakkan boobee loo xeexal moom xeexal moom du tee mu tarxiisal la comme daala bu dul jeex ba baa ngay faax looloo tax bari lan di tuub di dellu ci sa borom suñu borom mu ne fa sabbix bi xamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kaana tawaaba del sax di sabbal sa borom del sax di ko jéggulu moom day kuy dul dañ di nangu tuubu jaamam la abdullah ibnu omar radiallahu anhu mu ne daanañ soo bëgg yonent bi alayhi salaam benn jataay da nga dégg lu jóge téeméeri yoon mu ne rabbi ixfir li wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ci benn jataay doo fa téeméeri yoon ay yàlla yàlla nag ma jéggal ay yàlla yàlla nag ma nangul sa tuub yow yaay kiy nangu tuub yaay kiy yërëm say jaam bal nee na yonent bi alayhi salaam day dem na ci jigéen ña ne leen ay yéen jigéen ñi bari leen di jéggulu seen borom ca bari li ngeen di sarxe ndax man kat yàlla damaa woon sawara yéen yéen a fa gën a bari benn soxna jóg na ko mayu mi yàlla yónni lu tax ñun ñuy gën a bari sawara mu ne ñaari mbir bari ngeen a suul njëkk yeleen seen borom kër yi di defar waaye bari ngeen it di génne ay wax yu ñaaw ci seen gémmiñ ñi rawatina bari la nga xam ne mooy ak rëbb loolu kon muy yow bu dee soxna nga nga la way foo toll bari lal istixfaar bari lal di tudd dellu ci sa borom waaye bari lal it la nga xamee ne nii moom mooy di sarxe ci yàlla tax benn soxna bu ñu wax yasira moom nee na yonent bi alayhi salaam day nee na ay yéen soxna yi عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واخضبن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنتقات يوم القيامة أي جيجن بريلين بسبال سن بروم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أي بريلين كو تموت لنا خمنا موي تشغل بكن te bu ngeen koy def ngeen di lem seeni baaraam di ko konte loolu day dañ leen di laaj yowm alqiyama lépp loo xam ne nii seede woon nañ ko muy baaraam yooyu ay yow nii xeexal sa bakkan maytul jaxasoo bu bari di toog ak ay nit ñoo xam ne nii ay caaxaan dong la ñuy wax ay caaxaan dong la ñuy jëfe loolee dafay doon loo xam ne luy tilimal bakkan la di lonkoñal bakkan moytul loo bëgg lekk rek lekk foo fekk foo toll sa biir ngi fees loolu mbokk day fay leeru bakkan moytul fañ la fekk yaa ngay nelaw loolu day fay leeru bakkan waaye moytul sa xol bi nga koy at ci keneen ku dul yàlla ci képp koo jàpp ne da lay jëriñ wala da lay lor loolee mbokk da ngay gis ne mbir la yoo xamee ne nii dafay nekk di lundamal bakkan mbokk julit xamal ne li nga xam ne mooy suñu noon bi cheytaan suñu borom yàlla nee na inna cheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa cheytaane seen noon la jàppaleen ko muy noon innama yad'u xisbahu liyakunu min ashabi sair dafa bëgg yéen ñépp ngeen ànd ak moom tabbi sawara loolu kon fokk ñu jihaat ak moom naka la ñuy jihaat ak moom mooy xam jàng ba xam lan mooy pexey cheytaan ndax suñu borom mu ne ya ayuha alladina amanu la tattabiu xutuwaati cheytaan ay yéen jullit ñi bu leen topp yooni cheytaan loolu boo jàngul mënuloo ko xam te mooy nga xam li yàlla araamal ci yow xam li yàlla faratal ci yow ba nga bokk na ci it nga la way baril di tudd yàlla soo mën a toll cheytaane fiyeg yaa ngi tudd yàlla di delloo ci sa borom seytaane daf lay daw day mel ne ay borde ay barre de fer yu koy dóor moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na képp ci yéen koo xam ne bés bu nekk dana ci wax laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir ku mel nii day loolee dana ko aar ci seytaane ci bisam boobee gannaaw ba yeneen azkar yépp booy ci xel baril heure bu sa xel tarxiisee jëm ci lu wax lu bon wala jëf lu bon nga ne aouzu billahi min alcheytan arrajim bari la lépp loo xam ne yaa ngi koy def nga tàmbalee ko bismillah yii mbir la yoo xam ne dafay aar doomu aadama bi ca la nga xamee ni nii moom mooy pexey cheytaane yooyu di suñu noonu gannaaw ba itamit bàyyil xel be fépp foo xam ne yaa ngi fay dugg ngal la waay nga wax la yonent bi alayhi salaam santaane ñi wax ko fa na doon ca wanag wala ca kër ga la ca oto ba la ca tukki ba la te fu mu mën a doon doonte ne bokk na luy tënk loolu lépp mooy julit fexeel ba di gànnaayoo bismillah fexeel ba bismillah bu mu rëcc ci lépp loo xamee ni nii yaa ngi tey jëm loolee day da ngay gis ne dana tax cheytaane daa di lay moytu waaye bu dul loolu sunu yonent alayhi salaam nee na ki diggu këram ba muy diggu waxul bismillah cheytaane dana woo ay moromam kaay leen am ngeen fi ngeen fanaan koo xam ne yaa ngay lekk waxo bismillah cheytaane woo moromam kaay leen am ngeen fi ngeen reere ila axiri loolu kon mbokk ñu góorgóorlu bàyyi ci xel amma la nga xam ne nii mooy naafiq yi foog nga xam ne yow it julit yàlla nattoo nañu ay naafiq yu nekk suñu biir soo bëggee def lu baax ñu tere la ko wallahi waxuma démb waxuma barke démb tey rek benn xale bu jigéen mi ngi may wax daa toog ci jataay mu dégg ñoo xam ne dañuy commentaire ne lu ñuy dégg ci rajo bi ñu ne kat muuray nañu xam ne du farata muuray lu baax rek la koo xam ne yaa ngi koy def baax na waaye koo xam ne defoo ko loolu yéen ngay gis ne amul benn problème wallahi mbokk loolu munte musiba bu ñu gën a garaaw loolu ndax loolu ab yéefér moo ko wax déedéet koo xam ne mën na ma ngay dem jàkk ja ma ngay julli ma ngay woor loolu mbir la yoo xamee ni nii ku ne da cee war a bàyyi xel mooy naafiq yooyu ak ñooñu nga xam ne seen xol feebar moo ci nekk bëgguñu jaamu yàlla ca ñiy jaamu yàlla déranger leen loolu moo tax ña ngay critiquer ña nga xam ne ñooy bàyyi seeni sikkim ña ngay critiquer jullit ya nga xam ne ñooy muuru ña ngay critiquer ndaw ya nga xam ne lu mën a xew ñu bàyyi ko dem julli ca jàkka ja ila axiri ila axiri lu mel noonu nag fokk ngeen leen di bàyyi xel bañ leen a topp yonent bi sunu borom subhanahu wa taala nee na wa in tuti aksara man fi l ardi yudilluuka an sabilillah lu ëpp ci nit ñi boo leen toppee ñu sànq la ci yoonu yàlla mi ngi noonu am maa bu dee yéeféer yee loolee da ngay gis ne bu doon kattanu lislaam dafa doon lu taxaw ñu amoon kattan goo xam ne nii tey jii puissance la loolee dañoo war a taxaw jàmmarloog yéeféer yi fépp foo xam ne ña nga fay nogg te jurit ñi ñu dem jàmbaarloog ñoom takk la nga xam ne mooy daje nii américains yi occidentaux yi gëme seen démocratie bi jàpp ne war nañ koo tasaare ci àddina bi yépp loolu it la ñu xam ne l'islam it noonu la gëme ne diine yàlla ji moo war a tasaaroo ci àddina bi yépp doonte ne loolu dafay am ay charte yu muy àndal duna rek comme neex yaay jóg rek ne bu xet jóge fële na da ngay jihaad di rey ay innocent loolu mbir na moo xam ne l'islam xamu ko bu ko defee dañuy la gën a màgg ci ñoom it mooy mbokk la nga xam ne mooy ñaan mooy jihaad boobu ngay jihaad boole ci di ñaan foo mën a toll ñaan nga mooy lan ñaan yal na yal na yàlla dimbali la ci sa bakkan musal la ci ayam dimbali la ci pexey cheytaani musal la ci ayam dimbali la ci pexey yéeféri musal la ci ayam dimbali la ci pexey naafiqi musal lañ ci seen ay ndax kat mbokk julit la hawla wala quwata illa billah texe ak kattan kenn amu ko ku dul borom bi subhanahu wa taala mbokk jihaad mi ngi nii ca mooy fexeel jàng sa diine fexeel ndigali yàlla yi nga taxaw ci rafetal ko fexeel tere yàlla yi nga daadi ci taxaw moytu ko fexeel natt yi jóge ci noon yi nga daadi koy muñ muñ ko rafet daadi dimbali ko sa borom subhanahu wa taala ku mel nii day faqad jahada fi llahi xaq jihaadi ku mel nii jihaad na ci yàlla dëgg-dëgg jihaad yal na yàlla boole ñi ci jaamam yi nga xam ne nii jahadu fi llahi xaq jihaadi yal na yàlla subhanahu wa taala musal ñu ci sunu bànneexu bakkan mu ñuy yóbbu ci lu yàlla gërëmal yal na yàlla musal ñu ci pexey cheytaane ak plan yal na yàlla musal ñu ci fexey naafiq yi ak fexey yéeféer yi yal na yàlla bëggloo ñu ngëm yàlla yombalal ñu bañ mën caa taxaw yal na yàlla bañ loo ñu mooy yàlla yombalal ñu bañ bañ mën koo moytu gannaaw loolu mbokk jërit incha allah dimanche bii di ñëw am na ay mbokk yoo xam ne dañooy faat yu nekk ci hôpitaux yi kenn xamul seeni waajur am na mbokk julit yuy dem taxawu leen di leen sang di leen sang di leen yóbbu ci armeel ya ñëpp ñoo xam ne nii na bokk nañ ca ñooña ñu dem fa la nga xam ne mooy sétiwo dimanche ñi nga xam ne dañoo bëgg a dabu ñoom tuyaabay jullee ja ak suur ga kese ñu fexe ba lii di boori 10 heures bi mu 11 heures fekk leen ca yoon yal na yàlla jéggal leen yërëm leen ñi leen di taxaw it yal na yàlla subhanahu wa taala fa jàppale leen ca nangul leen seen taxawaay boobee yal na yàlla rafetal suñu mucc defal ñu àjjana mi suñu wàccuwaay اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين